na de maman. sama wax moom bëriwul mais damay sant bu baax a baax. ci fan. alhamdulilah bilaa la may doon. ndax bu baax la yàlla dafa laaj amul benn problème. ok moom rek laay jërëjëf. ndeysaan xool sedd na. waaw sama xool sedd na. ndeysaan kii. ma yaay na bu bala nga dem ci nga jur ko muy sa doom bis bi bi nga ko amee ci moom nga bégloon tey mu am ko ci sa sët ban toll waaye nga am sa doom mu daan nekk ci réseaux sociaux yi di wax ak ñi ci daan nekk ndool ñu koy tontu ñuy defante yooyu nga ko daan yëg di ko gis waaw parce que ñoom lu nit. ñi doon wax dañ ko xabtal. ba yenn yi ah kon liggéey bi ñu doon wax am na. donc loolu nee nañu c'est le passé ñu ngi si le présent journaliste yi de la nax sur le présent bàyyi leen le <laughs>

maa ngi na xale bi. man ah, allah ndeysaan am nga sët de maam borom Touba lañ ko tuddee. ndeysaan ça se yaay Nabou Daas la elle est timide. elle est belle. macha allah. kookoy sunu maman la maman de Nabou Daas ndeysaan. njëkke njëkkee ngi noonu macha allah njëkkee jàpp leen ne daal tudd bi def nañ ko fii si sunu kër Nabou Dash fii invité wu ñu yéen yéen ñii. waaw Ngoyaan yow doo doo ñu yëngalaatal tuuti Ngoyaan. ana Nabou moom mu ngi si suuf wala. donc gars yi comme ni ngeen ko xamee Nabou Dash ñi ko doon laaj boobu ba léegi am na doom bu góor. yàlla dimbali na ko sonnul loppul. doom bi nag na ko maam borom Touba. maam borom Touba lañ tuddee doom bi. donc ngeen ñaanal ko. saalum saalum bi waaw yow yaa ngi en direct ñëpp a ngi lay seetaan woneel sa bopp jaayal sa bopp waa Kaolack nga waa saalum ngoyaankat bi kuy ngoyaanati na la tàggu woyal ma benn rek yuuxul ñu yuuxul ñu ñu dégg baat bu neex bi yuuxul waaw bul ñu rusloo nag yuuxul hmm. moom ngoyaan hmm. Ndakaar lañ dégg naa nga ne salum Saalum yee ngi Sandaga ñu ngi Colobane ñu ngi Asalem ah, liggéey rek lañ xamee Saalum salum ah bul fàtte immigré it Saalum Saalum nekk Italie Espagne liggéey rek ah ndeysaan macha allah malade Abdoulaye Niass. léegi léegi léegi man lu may ne ñëpp a ngi seetaan jëlal ma micro bi rek yuuxul ma Saalum Saalum mi woy eh, eh, eh, jàmbaar faq dëll animu ana ñële père père aw li ngay aw tamit amul fenn père li muy aw amul fenn orchestre ngi nii ale bisimilah yuuxul ñu ñu dégg ana ana borom bool bi barke rasulullah yuuxu leen macha allah tarkala orchestre bi tarkala. waaye man Bergane borom la dëkk. moom Bergane. borom këru. Nabou ah kon foo ngeen foo ngeen foo ngeen fël bawal dama. da borom kër moo nekk bawal yow nga nekk Saalum. Hmm. lii la yàlla def. ndeysaan. da nga dégg na lay boot na ne nangu sa dara dalal la. waaw da nga nag da koo boot mu ne nangu dalal nangul. ndax nag booy wut jëkkër bu ko coppati day ko laajte ndax ka ba dara fekk sa nga ndeysaan. ki ñu sagal wute la ñu jigéen ñi kon kooku mooy mooy nangu Serigne Mbengue. macha allah am na solo donc euh, macha allah gars yi